rawatina mbokk auditeurs yi lenn ci ngéneelu yowmul jumaa ngéneelu yowmul jumaa bokk na ci ngéneelu yu bare bare bare lu kenn dut mën a lim ci waxtu su gàtt yu ñu cërale ci jamono ji waaye ñu fas yéene ànd ak mbokk auditeurs yi lenn ci ngéneelu yowmul jumaa ba yàlla buur bi tabaraka wa jox bés bi ndax buur yàlla tabaraka wa taala moo bind bés yi moo jox dayo bés bi di yowmul jumaa mu jox ko dayo bu toll ni amul weneen bés bi ko am waaye mu jagleel ko xëytu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngir ñun ñoo war a mën a jëfandikoo ngenil ba nekk ci yowmul jumaa di bisu àjjuma ji nu ngi ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yataqabala minna amin ya rabbal alamin yal nañu yàlla boole nangul lépp luñ ko jaamu mu doon jëf ju baax mu nangul ñu ko bu ñu ko nangulee yal nañu ko yàlla fulandil amin ya rabbal alamin <clears throat> mbokk yi xam ngeen ne bés ni ki tey yowmul jumaa bu teroo dinañ leen waxtaanal ngeen lii fa nekk donte duñ ko dajal donte duñ ko matal waaye suñu kemtalay kattan waxtu wi lum ñu may moom lañ fas yéene waxtaan ak yéen bi iznillahi subhaanahu wa taala mbokk yi xam ngeen ne yowmul jumaa da bés bi nga xamante ne mooy matale wala mooy dajale mboolem bés ya jiitu wala ñaari bés yay topp ci bés bi moo ne buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ni duñu wax melokaanu bés boobe ak nafa jullit bi di mel ci alquraanul karim di téere bi nga xamante ne moom la wàccee ci suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa ci saar ba ñuy duppee suratul jumaa saar ba ñu duppee bés bi ci boppam mu nekk suratul jumaa aaya ba fa nekk ci njeexantal bi buur yàlla tabaraka wa taala di woote woote bu mag séminaire bu mag formation bu mag bi nga xamante ne jullit ba war a dem wuyu séminaire boobu carte de invitation bañ la jox danga war kaa dem wuyu buur yàlla mu ngi ne di la wax comportement ya nga war a mën a comporté woo yow mi jaay yow miy liggéey yow miy jënd yow mi nekk ci marché bi ci commerce bi bur yàlla moo ngi ne di la wax woote bi daal bu jibee na mel nii woote bu njëkk bi yàlla dafa am critère doomu aadama yamu njëkk woo mooy ña yore barsu iman barsu iman mooy barsu ngëm yàlla ña ko ràngoo yore ko ñoom la bur yàlla tabaraka wa taala ci woote bu mag ba mu def moom subhaanahu wa taala ba tax na mu ne baada audu billahi min alsheytaani arrajim ya ayuha alladina aamanuu ida nuudiya lilsolaati min yowmi aljumuati fascaw ila dikri llah wa daru lbayca dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun fa ida qudiyat alsolaatu fantashiruu fi l ardi wabtaguu min fadlillah wadkuru llaha kathiran laallakum tuflixuun wa ida ra'aw tijaratan aw laxwan infaddu ilayha wa tarakuuka qaa'ima qul maa inda allahi xayru min allaxwi wa min altijara wallahu xayrun raziqin sadaqa allahu alazim mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di fi woote woote bu am solo woote bu am fayida jëmale ko ci mboolem woy gëm yàlla ñi woote bam leen di woo fu leen di woo ak lu tax mu di leen fa woo mbokk yi nañ leen dugg ci géeju alxuraan waaye ñu dugg ci géeju saar ba ñu naan suratul jumaa ñu xool ban aaya la ñuy napp ci saar bi su ko defee ñu andil ko mbokk auditeurs yi ci pénc bi ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew mi FM 97.5 mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa mu ngi nii di woote way gëm yàlla ñi mu ne leen yaa ayyuha alladina aamanu mboolem seen ñagom yàlla wiital yàlla bokkaale wu ñokk yàlla dara wiital ko ci moomelam ci nguuram ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe ñu gëm yàlla gëm yàlla mel ñoom la yàlla woo mu ne leen yaa ayyuha alladina kon ña gëm yàlla ñëw nañu wuyu si nañu woote balañ yàlla woo ci séminaire bi mbokk yi buur yàlla ne leen yéen mi ñëw wuyu si woote bi ma leen woo nii yéen mi yore bitaqatul iman yéen mi yore barjo ngëm yàlla te ma woo leen ngeen ñëw wuyu si ma discours ba ma leen bëgg a jox mooy <clears throat> ida nuudiya li solaati min yowmi aljumaat bu ñu wootee noddukat bi woote bésu yowmul jumaa melokaan bam leen bëgg a wax nii laa bëgg nangeen ko melo melokaan bu ma bëgg ngeen meloo ko te ma bëgg leen ka wax na ngeen ko xam ngeen nekkee ko bur yàlla ne fasaw na ngeen bàbbeeku na ngeen waajal nangeen dox jëm ila dikrillah ci tudd yàlla te mooy julli wadarul bay'a ngeen tegandi jaay ak jënd ku doon jaay na tëj ku doon lal di jaay na nga lalli nga doon jaay ku doon ubbi magasin di jaay na nga tëj sa magasin ku yëkkati sa rideau magasin na nga ko wàccee ila axirihi yàlla ne wadarul bay na ngeen tegandi njaay ak jënd ku ñëw ne jaay ma fekk ñu ngi nodd boo bëggee sa alal bi barke sa liggéey bi barke ne lii duma ko laal ba keroog ñuy julli ba pare ndax yàlla moo la ko sant moo tax mu ne leen daalikum leen digal nii xayrun la mooy li gën ci seen njaay waaye mooy li gën ci seen jëmm yi in kuntum taalamuun bu dee xam ngeen la ma leen digal nii bu dee xam ngeen ko loolu mooy li gën ci yéen lan la yàlla digal ba mu ne bu ngeen ko defee mooy li gën ci yéen moo ne dafa woote bu mu wootee ñamu woo mooy way gom yàlla ñi ne yàlla xam na ne way gom yàlla ñi bu leen yàlla woowee ba ñu wuyu ko bu ñu ko wuyusee ba pare la leen yàlla sant la ñuy def la leen tere lam leen tere la ñuy bàyyi moo tax ba mu doon woote waxut yaa ay naas waxut yéen nit ñi <clears throat> ndax yàlla xam na ne du ñëpp ko gëm xam na ne du ñëpp a war a appliquer la mu war a tëral condition ya mu war a tëral gannaaw woote bi xam na ni du ñëpp a ko war a appliquer ña ko mooy ñu yore barju iman mooy ñu nekk ci daairatul iman mooy ñi nekk ci këru ngëm yàlla ñoom la yàlla woo ci séminaire kon ña yore barju iman ñu ràngoo ngëm yàlla wiital yàlla topp ndigle yi bàyyi ña jikko wi ni mel dem wuyu yàlla ci woote bam leen woo mu ne leen noddukat bi bu noddee ida nuudiya li solaati min yowmal jumaa noddukat bi bu noddee bésu ajjuma mu nodd ngir ngeen dem wuyu julli gis nga isa nuudiya bu noddukat bi noddee li salaati ngir ngeen dem wuyu audience ba ngeen war a am ak seen boroom te muy julli min yowmil jumaati bésu ajjuma fas aw nangeen dem na ngeen bàbbeeku ilaa dikrillah dem ci tuddu yàlla bi te mooy julli dem ci fàttaleeku yàlla te mooy julli te ngeen tegandi jaay ak jënd waaw <clears throat> critères yi nag du ñëpp a ko mën a def yàlla xam na ne ñu ko mën a def mooy ñu gëm yàlla moo tax ñoom la yàlla woo yàlla ne wasarul bay'a ngeen bàyyi ngeen tegandi ngeen wàccee ngeen lalli ngeen tëj seen bërëb ba ngeen di jaay moo tax mu ne ngeen tegandi jaay ak jënd daalikum loolu ma leen wax ni xayrul lakum mooy li gën ci yéen in kuntum taalamuun bu fekkente ne xam ngeen ko looloo gën ci wax ne julli bi yaagul julli bi waxtu wu néew la rek ba tax na mu ne ñu fa ida qudiyati salaatu bu ñu noppee ci julli bu ñu joxee waxtu julli ba pare ñu noppi ci julli bi fantasiru fantashiru na ngeen tasaaroo fil ard si kaw suuf si wabtahu min fadlillah ngeen dem sàkku ngéneel ba leen yàlla tasal ci kaw suuf si di seen wërsëg kay liggéey na dem liggéey kay jaay na continuer jaay ba kay bay na dem bay ba ka nekk feneen na dem foofu fàggu la nga xamante ne mooy ngëneel ba ka yàlla tasal ci kaw suuf si moo tax yàlla ne wadkurullaha topp ci ngeen di tudd yàlla kathiran nu mu gën a bëree laallakum tuflixuun xëy na bu ngeen defee lii ma leen wax loolu mooy la gën ci yéen te loolu mooy la leen di tax faguloo texe bi nga xamante ne waajalal naa ko képp ku tënk boppam ci la nga xamante ne mooy la ma digle kon mbokk yi lii lenn la ci ndigle ya nga xamante ne buur yàlla subhaanahu wa moo ko digal doomu aadama bi ngir mu meloo ko yowmul jumaa di bisu ajjum mbokk yi bokk na ci ngéneelu yowmal jumaa bi léegi di bésu arjuma ngéneel ya fa nekk nuñ leen jukkil ci mbindum boroom xam-xam yeeg aaya alquran la mu indi ak xadiisa yonent bi salaa sallam lam ci indi lam ci jàngale du xaaj du jeex waaye ñu jukkil leen ci tuuti rekk mu méngoog waxtu su néew yi ñu cëralee waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97 point 5 mbokk yi bu demee xool ci xadisu yonent bi salaa sallam te moy xadisu abdullahi bnu umar radiallahu anhu nee na an abdullahi bnu umar radiallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal afdalu salawaati inda allahi salaatu subhi yowma aljumuati fi ljamaati axrajahu albani abdullahi bun umar radiallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën ci waxtu julli ba gënal yàlla mooy julli suba yowmul jumaa ba jullit bi di def ci mbooloo mbokk yi bu fekkente ne dañ laa bàyyi ak sa sago rek ñu ne la na nga xool ana ban waxtu julli mooy waxtu julli ba gënal yàlla noo koy xame man de xawma ko boo ko doon xool foo koy fekk man de xawma ko boo ko doon jàng ku la koy jàngal man di xawma ko ndegem yonent bi moo la ko xamal sallallahu alayhi wa moo la ko jàngal moo la ko xamal moo la ko won ba nga gis nga jàng ko xam ko ràññee ko kon ana looy xaar bésu yowmul jumaa fajar ba ngay julli ci mbooloo bi mu di la raw ñu nit ñu di leen ko àndil ci penc bi ñu di ko waxtaan ak yéen ci réew mi FM 97.5 kon nañ leen bokk déglu nañ leen bokk taataan la fi ruusee ci ay ngéneel rawatina ngéneel bañ leen di waxtaanal nii te yowmul jumaa lamboo ko ñaan yàlla suñu boroom yal nañu yàlla wërsëgal yiw ya nekk ci bésu arjuma ji mbokk yi julli fajar ci mbooloo bésu ajjuma yonentu bi nee na daldi waxtu julli ba gënal yàlla ci jullit bay julli waxtu yeneen waxtu yi audience ba gënal yàlla audience ba gënal yàlla mooy audience ba muy am ak jullit bi te mu doon bésu àjjuma mu doon njëlbeenu audience ba muy am ak boromam te muy julli suba ña ko doon def waxtu su néew ci ginnaaw yal na leen yàlla nangul ngeneel bi yal nañu ko yàlla boole defal amin ya rabbal alamin mbokk yi ba léegi bokk na ci ngeneelu bésu ajjuma ci xadiisu aws bun abi aws radiyallahu anhu nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal inna min afdali ayaamikum yowma aljumcati fa akthiru alayya min alsalaati fiihi fa inna salaatakum macrudatun alayya xadisun saxix axrajahu albani saxixu abi daawud mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot sahaabi bi di aws bun abi aws yal na ko buri yàlla gërëm nee na naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu inna min afdali ayaamikum yowmal jumaati neena na bi neena na sallallahu alayhi wa naka gën ci bés yay ñëw di jaar jàll mooy bésu ajjuma waaw bés yay jaar jàll ci bés àddina yi ajjuma si gën yonent bi neena na ngéneel boobu bokk na ci la tax mun nañu fa akthiru alayya min as-salaati fii na ngeen baril na ngeen baril la ngeen di julli ci man waaw baril leen la ngeen di wax allahumma salli ala sayyidina muhammad na ngeen baril la ngeen di julli ci man sallallahu alayhi wa mu ne ñu fa akthiru na ngeen baril min alsalaati fiihi aw fa akthiru alayya min alsalaati fiihi na ngeen bari di julli ci man sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee nañu gën ci bés bay jaar jàll muy bésu àjjuma na ngeen bari la ngeen di julli ci man sallallahu alayhi wa mu teg si ne mu ne ñu fa inna salaatakum maarudatun alayya xam leen ne kat julli ba ngeen di julli ci man de dañ ma kay gaaral sallallahu alayhi wa sallam ba tax na waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar ci waxtu wi ñi nit ñu di leen jukki lenn ci la nga xamante ne mooy ngéneelu yowmal jumaa yal na ñu la boolee defal ngéneel ba nekk ci bés bi amin ya rabbal alamin mbokk yi bokk na ci la yowmal jumaa làmboo ci ay xeetu ngéneel bokk na ci xadis ba nga xamante ne moom lañ leen doon jukkil sànq yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu ko baaxee ne ñu bokk na ci ngëneelu yowmal jumaa mooy ngeen baril la ngeen di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ndax julli ba ngeen di julli ci man dañ ma koy gaaral dañ ma koy yóbbante te dañ ma koy wan sallallahu alayhi wa mbokk yi bokk na ci la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ne noonu la ñuy julli ci moom kon mu di melokaan bi nga xamante ne moo ko jàngal te moo ñu ko wax te bu ñu ko waxutoon ni konte woon amul kenn ku koy wax sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu qaab bun أن رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد wa ali wa ala ali muhammad kama salayta ala ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid muttafaqun alayh mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot la yonent bi ne gën ci bés bay ñëw gën ci bés yay jaar jàll ci bési àddina yi bésu àjjuma moo ci gën sallallahu alayhi wa tax na mu ne ñu na ngeen bari li ngeen di julli ci man xeetu allahumma salli ala sayyidina muhammad ba ñuy wax yenent bi nee na sala sallam keroog ba waaye ba ñëw ñu fekk ko mu ne ko qad arafna kayfa nusallim aleyk xam nañ nañ lay nuyoo buñ la fekk nga toog walla nga fekk di dallu ñu fekk la fa nga nekk mën nañ laa wax ne assalaamu aleyka ya rasulallah wala ñu ne la assalaamu aleyka ya habiballah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xam nañ nuñ lay nuyo fa kayfa nu salli aleyka waaw ana nuñ lay nu ñuy julli ci yow ana nuñ lay ñaanal nañ la war a ñaanal ana naka lañ la war ñaanal ba waaj bi laaji lii salaa salaam ne la qaal yonent bi ne ko quulu na wax ne allahumma salli ala muhammadin wa ala ali kama salayta ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim innaka hamidun majid nee na na wax lii ak yeneen na nga xamante ne yonent bi moo ko joxe sallallahu alayhi wa sallam waxtu bu secret waxtu bu am dayo ci bésu yowmul jumaa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi léegi mu di ñu wax ci melokaanu yowmul jumaa di sunna yowmul jumaa ñu di ko fàttali mbokk yi ñu di ko baamu tamit ngir képp ku ñuy topp ci waxtaanu fajar ci waxtu wi fii ci réew mi FM 97.5 ñu bokk njëriñu la nga xamante ne mooy la fi yonent bi bàyyi kom jàngale ngir jullit bi war si war a mën a tënk boppam moo ne min sunani yowmil jumaa bokk na ci sunnay yowmil jumaa al iqtisaal sang buñ ne sang nag dafa war a ànd ak wat lenn ci parti doomu aadama rawatina jullit bi lu mel ni kawaru poxotaan dañ ko war wat lu mel ni kawaru naq dañ ko war a wat lu mel ni we bu commencé génn dañ ko war a lelli moo xam wewu tànk la moo xam wewu loxo la su ko defee loolu day ànd ak laab ndax yàlla moo ne ci alquran inna allaha yuhibbu tawaabina wa yuhibbu almutatahirin yàlla dafa bëgg jaam bi muy tuub saa ne muy sellal bakkanam waaye yàlla dafa sopp jaam bi saa su ne muy laabal yaramam jëmmam su ko defee ñu ne bu dee da sangu set xamal ne laabal nga sa ruux laabal nga sa yaram ci biir ak ci biti ndegem doo mun a jël sa ruux di ko raxas di ko fóot kon ñu ne bu dee da ngaa tënku ci joxoñ bala yonent bi joxoñal ne na nga sangu set yëmul jumaa dafa bokk ci sunna boo ko defee sa ruux laab na sa yaram set na ñaareel bi mooy atabakkir ilal masjid teel a dem ci jàkka ji ngineel ba fa nekk ndax yowmal jumaa bu tero yonentu bi nee na am na malaaka ya ñuy samp ci buntu jàkk bu nekk ci kaw suuf si ñuy bind turi ñu jiitu ak ñu topp ci ñu jiitu bu imaam yegsee ba mu taxaw ci minbar bi ñu daal di tëj seen registre boobu kon ngineel bi ngay am ci teel dem ci jàkka ji bokk na ci tombeeg waxtu ba malaaka yi di bind turu jaami bokk na ci sunnay yowmal jumaa bi léegi yow jullit bi nanga xeeñ xeeñ bu neex ndax fa ngay jëm mbooloo la du ñàkk nga fekk fa ay malaaka yoo xamante ne xet bu neex moo leen di génnal xet bu naqari kon booy dem na nga laal xet bu neex mbokk yi ba léegi bokk na ci sunnay yowmul jumaa nga jàng suuratul fii mooy dix-huitième saar di saaru alquran yonent bi nee na képp ku jàng suratul kahf arjuma bi nga ko jàng ba beneen arjuma bi di di delsi dañ lay barancel dañ lay montel dangay dinga bokk ci réseau leeru alquran bañ lay montel ba keroog beneen arjuma bi di delsi su ko defee ngay dund leeru alquran mu di la moytandikuloo pour ngay jëf bàkkaar wala ngay tàbbi ci ay may yàlla yi nga xamante ne bu duwutoon leeru alquran bañ la montel seytaane mën na la kuf yóbbu la ci loole kon jàng alquran rawatina suratul kaf yowmul juma da lay tere ngay dugg ci ay ñawtif bokk na bi léegi lubsul ahsanu siyaab ngay sol yére bu rafet ñu taamu ci bu weex bu dee jàppandiwul tamit na nga sol beneen couleur waaye na doon yére bu leer te set bokk na ci mbokk yi ba léegi kasaratu salaatu ala nabi ngay gën a bëril la nga xamante ne mooy julli si yonent bi salaa sallam comme nu mu ko waxee mu ne fa akthiru alayya min assalaati fiihi bokk na ci sunna yi jumaa bi léegi mbokk yi mooy assiwaak ngay soccu ndax yàlla moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak malaakaam yi ñu ngi julli ci yonent bi di ko ñaanal kon yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim yéen ñi góom yàlla na ngeen julli ci moom waaye ngeen jàmmal ko tamit di ko booleek di ko nuyu bokk na ci yowmul jumaa sunna ya fa nekk mooy soccu ñu ne soccu yonentu bi daf ne assiwaaku mutaharatun lil fami wa mardaatu li rabbi waaw soccu ñu ne bokk na ci di nga sàkku di sa bopp ngir mànde yàlla waaye day laabal sa gémmiñ ñu ne bokk na ci sunna yowmul jumaa mooy atahari saatun ijaaba ngay xemmem di xeñtu di géem góor góor ngir tombeek waxtuy nangu ñaan ba nekk ci bésu àjjuma ñu ne waxtu yaa nga ci bëcc bëccëgu àjjuma wala ci bésu àjjuma waxtu woowu yonent bi neena doomu aadama bi wala jullit bi du fa nekk di tàllal loxoom di ñaan yàlla dara lu dul buur yàlla dina ko nangul loolu muy ñaan kon bésu àjjuma dañoo war di ñaan yàlla keroog bu jant bi fenkee bu ñu julli fajar ba keroog jant bi di so jurne bi yëpp dañ ko war a def njàngum alquran di julli ci yonent bi di tàllal loxo di ñaan yàlla sallallahu alayhi wa moo ñu xaman lii kon bés la bi nga xamante ne kenn ku nekk ci askanu jullit ñi bàyyi ko xel jox ko gëdd préparer ko depuis alxamis si guddi wala préparer ko depuis jeudi si guddi su ko defee mu doon programme bi nga xamante ne day nekk système de vie ba ngay dund lépp luñ fa ñaan yàlla yan na ko yàlla nangul lépp luñ fa jaamu yàlla yan na ko yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñay tas xibaar ci nasaraan ñu ngi ni taxaw ñu fas yéene leen jébbal bërëb bi saa ili na mawla jalla wa ala ñu taqabbala minna wa minkum saalihul amal allahuma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulata umuurina allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayaati wa dikri alxakim aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum min kulli dambin fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rrahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu